xibaar bu nakari euh, lañ fi jotandi ci rédaction bi acteur di Jean Paul d'Almeda maison de production euh, bii di ak série télévisée sénégalaise itam ci télé-réalité moom Jean Paul Dalméda noonu nañ ko xam itam ci wàllug mannequinat maanaam modèle la doon def laata muy duggandi ci lii di wàllug jouer ay film Jean Paul Dalméda nag ñu gënoon ko ràññee ci biir série télévisée yi dafa def accident bu metti gannaaw si loolu lañ ko yóbbee hôpital ak i gaañu gaañu yi mu amoon waaye mu mel ni ni ki tey suba lañ ko tàggee di wax ne daal génn na àdduna jaale ñi nga xamante ne ñoo nekk nekk ci wàllug caada ji euh, mu di wàllu culture waaye itam di ko jaale ñi nga xamante ne ñooy njabootam ak ñi nga xamante ne ñooy xaritam ak ay jegeñaaleem ci sama kàddu